mbokk Samagal TV macha allah gis ngeen maa ngi ñëwaat fii bergerie Kër Massamba Mbacké ndax dama fay jaaroon am ay champion yu bari yoo xam ni lu mën na ci quatre quatre trois agnelle dafa naa ak ñaari agnelle ak benn jeune mâle ak benn femelle ak benn adulte macha allah résultat yi génn defe naa ni am nga ci ay trophée ci ay loolu ak yan trophée nga gañ asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu aw naka yaa bi ka nastayin yestur loom bii li si temps sara fa kullu ñu ngi ziare mboolem élevage gépp tey am kontaan am mbégte ci e, groupe bi am ni ko gaa yi doxale rek wax dëgg kontaan nañ lool ci foire yi boo xoolee ñi fi nekk bari na lool bañ tàmbalee élevage léegi daanaka ay at yu néew la suñ borom dimbali ji ñu am ci trophée kon ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax. tey e, kan ak moo gañ ñaata añal yi. waaw ñaari añal lañ dugaloon yeneen dañ leen a natt nattu bët yeneen dañ leen a natt centimètre. Eh, kenn ki mu ngi jël deuxième ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne deuxième la jël. ci côté ñi natt bët yi ñi am 13 mois yi. 10 hmm. mois jëm 13. waaw ñu tàmbalee ñu tàmbalee 10 mois ba 13 mois la ñuy natt. waaw ah. yeneen yi dañ leen di natt natt bët rek añari. ñu hmm. tàmbalee 10 mois ba 13 mois kan moo jël deuxième. Ah, kenn ku ne dafa jël deuxième ñi ma dugaloon ñëpp kenn ku ne deuxième la. Ouleye Ngom deuxième la jëm. ok Lin deuxième la jëm. deuxième la jëm ok ñaari xatar ak ban tarafa nga amaat. Ah, am na benn jeune Mali moom moo jël troisième. moo jël troisième. moo jël troisième waaye. nekk doomu Ila Touba côté femelle nag amoo ci côté. côté femelle waaw mooy comme yu ndaw yi rek yeneen yi moom. daanaka gars yi dañ leen dóor ko. waaw monsieur Sëñ Baye Tamba Mbacké. añoo bi moom xamoon na ne génn añoo bi daa rafet. waaw boobu moom moom kenn natu ko xamoon nañ ko démb moom démb moom Californie ñoom ñoom. ok xamoon nañ wax dëgg yàlla troisième duñ ci génn moom. waaw mais moom moom bi nattu bët lañ ko nat. nattu bët lañ ko nat. Hmm. keneen ki nag gars yi dañ ci machine nattu ko. ok ah, yu rafet la léegi daal Ulay Ngom moom lañ nat natu bët mu jël deuxième. Euh, lune lune. Euh, lañ nat machine ci machine yi mu jël deuxième. léegi ñu nat ak natu bët mu jël deuxième. ok Ulay hmm. mooy fooyee bu ñuul boobu. moom kon moom ak lune. waaw mais ay semaine rek. ah d'accord macha hmm. allah. onze mois douze mois onze Ah, kontaan nañ maal bi maceration ñaar la yéen euh, maal bi def na LCS 147 hauteur mu def 110 euh, mais prix moo fo moo faible ko poids bi parce que poids yi dafa def 106 daa faible baax a baax yàlla baax na kon looy wax ñëpp ak looy tàggoo waaw ah, kontaan baax rek tey mbégte tey sant waa Wakaam di leen gërëm te xam ne amul seen fay lii lépp ñoom la même travail yëpp rek ñoom laa koy delloo njukkal di jaar ñëpp di baal ñëpp àq te di leen baalaax xam ne lii moom ndamul wakaam la ndamul wakaam la sunu ndam moom parce que lu ñu am wakaam lañ gal kon ñu leen di sant baax te di leen gërëm di leen ñaan boole ñun ñëpp kon naa a bëgg euh, mu ngeen xam ne rek moom mooy def repas bu doy bi mais gars yi aliment bi mais nu mu demee euh, gars yi ko bëgg na xam ne lépp composition yëpp lañ ci boole parce que basi dañ ci def mbokk dañ ci def bene dañ ci def ràkkalu mali dañ ci def gera gerte dañ ci def koray euh, dañ ci def ndir dañ ci def euh, tir dañ ci def euh, ndir tamit dañ ci am dana am tamit ñaxnat dañ am tamit ay beref ak yu bare bare dana ko am tam mboq bi dañ koy gar rakal mali bi dañ koy gar di ko liggéey ci liggey bu sel la. mais detaay rek ko jaay. dañ koy détail dañ koy jaay dañ koy jaay dañ koy jaay pri en am na tey Milan Pison la. ok macha allah. ku bëgg rek mën a woote ci 77 156 71 58. 71 58 waaw. kontaan nañ ko. ñoo la gën a bëgg.